ayo bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Mariétou fii ci saveur planétaire incha allah fas yéene dellusiwaat tey ci kàttanu yàlla euh, tey dañu fas yéene togg fiiriir <laughs> fiiriir la ñuy defar incha allah mais bi fiiriir bi duñ ko def soos bu weex ak mayonnaise ak salaat dañ koy def soos bu xonq ak pataat douce mère Diop da daan defar lii macha allah. donc euh, li ñuy gis nii suñu patate douce la mi ngi nii mooy sweet potato dama ci wis nii tuuti xorom a little bit of salt tuuti xorom laa ci dañuy ñëw saaf ko fii ba mu dooree ñu seppi ko tegee nele suñu jën a ngi nii moom tuuti xorom ak poobar rek lañ ko fas yéenee def beneen yoon bu ñu def firiir bu weex ñu indi yeneen assaisonnement yi laal ci mais tey mi ngi nii suñu jën yaa ngi nii macha allah jënu firiir bu ñu ko saafee ba mu ñor moom it ñu seppi suñu soblee ngi nii ñu defar suñu soosu soble bu am tomate concentré tomate paste sauce bu xonq sauce rouge poivron bi mère Diop daan ko ci def mais man dama ko ciy daggati def ko ci tomate fraîche bi oignon bi ak ail bi donc ñu ngi fi ak suñu poivre ak suñu feuille de laurier incha allah léegi li ñuy def comme diwlin bi tàng na ak bismillah ñu ne ci rell patate bi fii gis ngeen ko nii maa ngi nuyu di ziar ñëpp ñi ñuy déggee ñëpp macha allah chaque jour damay jot ay message ba pare YouTube bi commentaire yi ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn mag ak ndaw góor ak jigéen ñu ñuy jàppale ci liggéey bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen remercier bu baax a baax macha allah voilà léegi ñu saako gum lii ñëw nag daal di euh, suñu jën ne la defar suñu xorom ak foobar def ko ci biir ay aywa ci suñu pataat bi ci voilà donc loolu dañuy ñëw léegi seppi ko daal di saaf suñu jën incha allah que lii pataat bi même bu ñorul ci biir tam bu ñu fàtte ne firiir soos bu xonk bi ah mère Diop boog nam ko daan defee nga daan tëmbalaat pataat duusi ci biir soos bi bu lépp paree ba gundus gundusee dégg nga maam ñu firiir ko ba mu wow génne tegee ko nee mu jàpp forme ñu daal di dóor soos tomate bi ba mu fatt taret day jël ndànk pataat bi newaat ko ci réel tëmbal ko ca dégg nga maam jël toftale ni jël jën yi daal di ko ci tëmbalaan ndànk sànni ci poobar ak laurier laal ci vinaigre mu xoro firi <laughs> bu neex a ngoog yàlla rek xam kañ laa gëjee euh, dégg nga maam rek firi bu mel noonu mais macha allah aywa newoon naa leen waa ñu meer Pape Diop incha allah lépp lu fa génnee rek ci kàttanu yàlla lu ñu ci fàttaliku rek euh, dinañ leen ko tegal seen kaw table ci saveur planétaire aywa ñu ñëw gis ngeen fii nii euh, poivre la ak sel lii tuuti rek ay en poudre laa ci laal parce que bëgguma mu xamal suñu firir bi tam gis ngeen ko ni tuuti rek ay en poudre sinon euh, bu ñuy defar firir sauce bu weex bi am naa façon bu ñu koy defee tam macha allah nga xam ne dañuy dëbb laaj bi tam ak yuubu yàbb yeeg yëpp def ko ci biir tranche yi léegi lii la ñuy boole mixé ko daal di ñëw dugal ko ci tranche ma ngoo ko def ko ci tranche bien bon mu dugg ci biir gis ngeen leen nii mélange bi parce que bu ñu dañ koy tumbalaat ci ñeex mi voilà sauce rouge bi dañ ko ci tëmbalaat te sauce boobu xam nga foog mu saf nag yóbbu yàbb yëpp ci lañ koy gis ngeen ko nii su ko defee dañ ko ciy teg ndànk gis ngeen ko nii gis ngeen bopp jën bi côté bi lañ ko féetale bopp bi côté bële lañ koy féetale comme ça ñu am assez de d'espace voilà gis ngeen ko ni ñu jiwarlee mu nga léegi li firi bi tam soxlawul ñu ci ñu farine soxlawuñu ci wut farine bii jën ak bii firiir yëpp parce que tam après bu ñu paree di ko tëmbalaat ci ñeex bi bugguma mu joxal ñu ko comme ñeexa doma daal di di di far di kii noonu you know xam nga gis ngeen ni suñu ciin la ciin na benn eh? sa bi voilà bàyyi beneen côté bi moom it jàpp comme incha allah Ah, mbokk yi gis ngeen nii macha allah jën bi mi ngi saaku si gis ngeen desitu luñ bomboon ci jën bi poivre bi ak tuuti aay bi ci gën gi la jëm nii gis ngeen fi ñu ngi si ak suñu aay garlic oignon soble bi moom la ñëw tucc tuccal ko tuuti rek moom mi dañ koy tuccal rek tuuti su gaaw su ko defee suñ poivron yi ñu daggati ko tam boole ko ci suñu soosu soble laurier yaa ngi ne la ngoog koy rek ñu dégg jàmm voilà gis ngeen ko nii c'est pour suñu ko aywa ñu ñëw seet ñëpp ñor nañ bien bon voilà mu leen rëll ci soos ay ah, bismillah mbokk yi gis ngeen nii sépp nañ suñu jën yëpp léegi nii soble ci lañ ci naan yël bàyyi ko mu lax ñu tiital soble bi ci ba mu tiit ñu jël ndànk tomate euh, peste bi tomate concentré bi moom it laal ko ci bu fekkente ne nag temps bi dafa xat ngay njëkkantoog temps bi mën nga ko def soos ne ko ci réel li rek comme bi ñu defoon ci akara bi yu di yàbb yëpp ngay boole ndoo rek taal taxaw di yëngal <laughs> waaw maa la la ba heure relevé jot nga daal di relevé tàppale xool lu manqué léegi gis ngeen fii nii diwlin bi yëpp wàññi nañ ko fii gis ngeen donc lii lañ ko bàyyi li ñuy soxla pour suñu foofu mais dañu bàyyi ko nii mu cëpp cëpp ba ci kanam tuuti incha allah ñu jël suñu nokkat bi yegsee bi actually lii sax ñenn ñu ne ci réel bi rek benn la mëngoog ànd ak moom muy cëpp cëpp ba ci kanam incha ayo bu ñu fàtte bi ci yi maa ngi leen di jéggalu macha allah ceebu suweer bi ceebu jënu jaga bi soosu soble bi euh, bi may édité yëpp pour boole vidéo yëpp def ko benn mën ko dugal ci YouTube bi dafa am benn vidéo bu ma ci sauté am na mbokk yu ma ko signalé maa ngi leen di jéggalu muy ci jaga bi début wu jaga bi donc début wu jaga bi li ma def soble bi kese laa bàyyi mu lax noonu ma ni diwu ceebu jën bi sotti ci ñu liggéey ko ak ñeexu ceebu jën bi loolu ngeen di gisoon donc jàngat bi ba léegi laaluma ci tomate li ma defoon ci ceebu jën ba rek laa jël voilà ñu lugg ceebu jën bi dama ko ñu luggoom boo xamante ne dinaa ci mën a génne lu may def ci jaga bi diw ceebu jën bi bi ma koy togg dama ci sóoraale woon loo xam ne euh, bu ma jëlee sama kastiloor ba teg ko incha allah jël pool bi teg ko euh, sotti ci soble bi ma daggati woon noonu bàyyi ko mu cëpp cëpp benn une minute noonu rek ma daal di ko ne ndànk ci diwu ceebu jën ba waaw daal di ko ne réel nag ci kaw soosu soble boobu ci jaga bi nga xamante ne toggoon naa ko ci ceebu jën bi ñu leen dugalal barki démb la bon incha xam naa ndax loolu rek dina tax ñu defaraatal leen beneen ceebu jën pour indiwaatal leen euh, jaga boobu incha allah nee leen mère Diop dafa bëri ay façon ceebu jën dina am beneen ceebu jën bu ñu indi boo xamante ne boobu tam bokk na ci lu gën a populaire foofu noonu Sénégal euh, nga xamante ne que dañuy euh, taalaale soble bi la ñuy jiital taalaale ko ak <laughs> dogu yëtam ak euh, benn kaan bu vertam ba yëpp yi xaw a lax-laxal noonu mu xóoyal tamaateem ne ko ci réel <laughs> aywa donc gis ngeen ni suñu nokkas bi mooy ñëw dugg si voilà léegi desitu nokkas bi dañ koy lenqal yi ak ndox ñëw nag ñulub ko ay yee dañ koy ñulub donc fii xam naa damay ñëw laal ci tuuti ci garlic clove di fàttali ñi may laaj tout le temps fu ñu mën a amee garlic clove naan ma Sénégal lañ nekk wala France ak yooyu garlic clove bi maanaam mooy ay plus loolu Canada lay jóge Canada la am man Amérique gii ma nekk fii nii bu ma ko soxlaa Canada laa koy wutee amuma ko fii fii fii fii ma nekk nii voilà donc boo leen amee mbokk yu ne Canada wala ngeen fay faral di dem foo leen ko fa fekk rek nee leen ko rocceet yéen yóbbaale. mën nga ay xoolal garlic clove bi tuuti rek macha allah. léegi gis ngeen kàddu kii moom la ñu jot dañ ko ñulub ñu ñulub te gën kaa voilà ko nii voilà ñu ci sànniwaat tuuti xorom pour relever jën bi ak pataat bi ñu doon fàtt amoon na tuuti xorom juste un tout petit peu ñu ñëw sànni euh, vinaigre laa fi yor muy euh, cidre de pomme bi mom di moom it ñu ko mbir vinaigre ci c'est bon légui fi mu sama nii bi xamna dama ko ci muju baña def ni kon mënon nañ ko defaale ci mais bon bax nañ ni légui gis ngeen ko ni ñu njóoba bu defaan ni ba pare day jëlaat ndànk jën yi tumbalaat ko ci ni ndank ci buus noonu voilà comme ça gis ngeen ko noonu ni daal di jël pataat bi nekk ci nii xem meer jóob waay macha allah yal na yàlla xaare ko ay jëriñ maa ngi koy ñaanal ñu seen wéjjur génn àdduna yëpp aywa li may këf ki nag léegi nii raay leen nii ci kaw bi yëpp jàpp foofu incha allah su ko defee ñu fay ñëw nag suñu assiette mais firir bi nag <laughs> mburu lay àndal de maa la wax ni firir bi mburu ko dem ko ñëwee tàngal suñu mburu incha allah boole le moom voilà léegi ñu ñëw ko wàññi fo bi tuuti bu ñu fàtte ne jën yi fi mu ak euh, patate bi yëpp tiit nañu bi tous les bagages yaaba yi fi ne yëpp euh, jàpp forme <laughs> firi sos bu xonk bu <laughs> dañu koy jencal desit bi bu ñu xëyee suba di jàng moom la ñuy sandwichal mooy goûté bi 10 heures ñu génn récréation rek commencé kañ xëcc casier yi <laughs> ñoom sàkk ñoom bopp mburu ak ñoom tous les bagages boo bañee maye sa xarit yi nag <laughs> ci sa goûter da fas sa kanam boo ko yëy fas sa kanam ngay def boo ko yëy moo xam ne lii tey voilà donc from time to time ñu laal nii ci suuf rek pour bañ mu dàq mën nga firir sos bu xonk ak patate bu ay mbokk yi gis ngeen suñu firir a ngi ni bu xonk à la mère fat diop comme d'habitude lii ni ay fënu yi euh, nu tudd nee naa yi ni ko weti dil la gis ngeen ko moom tam dafa parfumé torop torop torop macha allah neex ci jën moom wala fënu yi euh, ku ko am rek mën nga ko kii moom laa ci mbicc mbiccal nii nii rek ci kaw non seulement que mu may ñu ci couleur mais mu gën a relever cafka ji voilà donc ñëw dressé suñu assiette lii lañ leen indil tey ci saveur planétaire firiir soos bu xonq ak patate douce bu ñu tëmbalaat ndànk ci kaw ñeex ma eh, bismillah mbokk yi lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planetaire muy euh, firiir mère Diop macha allah soos bu xonq ak euh, patate douce bu am euh, pataas ñu tëmbalaat jën beeg pataas beeg yubu yàbb yëpp ci kaw ñeex mi ayo bismillah di leen wax ne vidéo complet yaa ngi ci youtube bi salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu Marietou na ak jàmm